bismillah yakfini akdara ya allah safil baqaya bihi li fika ya allah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisaa gisaay bi ngeen xam ni lu rëy xew na loolu moo lan mooy bés bi nga xamante ni mooy journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy amalal maam Cheikh Issa Diène euh, fii ci Ndakaaru mu war a am nag dimanche euh, le 28 euh, janvier 2024 mu mel ne nag bis boobu di bis bu rëy ñoo amal ko nag ci ndigalal la Serigne Mountakhal Bassir waaye tamit ci kilifteefu Serigne Abdou Latif Diène xalifa maam Cheikh Issa Diène ak mboolem ay rakkam waaye tamit nag ah, ah, ay doomam ak sët yi waaye taalibe yi ak seexi maam Cheikh Issa Dienne ah, thème bi di jàmm bis bi daal góor jigéen mag ndaw ñi ngi ci woo ñëpp nag ñi ngi wax nag ci turu jamaiyatu tawdihi wa nashri li injazati Cheikh Issa Dienne war fee wuutu le président Serigne seex Dienne moom Serigne Souhaïbou Dienne ñuy woote lu jëm ci bis bu tedd boobu nga xam ne ñi ngi koy amal ci foire internationale bu Dakar ci salle bu mag bi di unité africaine. ci ko yëgal nag njabootuk Sayxul Xadim gi yëpp li ko tàmbalee ci kër seex Mouhamadul Moustapha ba ci seex Mouhamadul Mourtada góor ñi ak jigéen ñi ñi ngi koy yëgalit li tàmbalee ci kër soxna Fatija Mbàkke ba ci kër soxna may a Soxraa naka noonu it seexi Seyxul Xaddim yi la ko commencé ci sëñ aadama géey ba ci ki sëriñ bi mujj a seexal baywuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn bis ba nag na muy demee yéen ñëpp xam ngeen ko bis la boo xam ne lépp dañ koo bëggalal ci kaw xaqiqatu mooy defar toogaay ak jotaay ndax ay kilifa lañu fay xaar te kilifa yu tedd lañ ko tudde ren muy maam Cheikh Anta borom gaawaan di borom dërëm ak ngërëm ak rakam ju tedd ja di al imaamul akbar sëriñ Afiya Mbàkke di rakk ci maam Cheikh Anta radiyallahu anhu lépp lu luñ ciy defit nag ñi ngi xam wane ni ci kaw ndigalul ki fi nekkal Cheikh Issa Diène ci ndigalam lañ koy def fasuñu ko yéene wàcc ñi ngi woo presse bi ñi ngi woo kilifa diine yi di woo gëstukat yi borom xam-xam yi intellectuel yi ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañoo am ab xam ci doxinu maam Cheikh Issa daal ñi ngi leen di woo mbokk taalibe ñu ngi leen di nuyu képp ku ci nekk sa tur ak sant. di woo El Hadj Mbacke yu fay moo maanaam représentant du Mouride Dakar Ndiaye Cap Vert ñu ngi ko ci woo ak mbooloom daayira yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Masaalikul Jinaan di ci jiital isbu tarixa ak mbooloom ñu bokkal kuréelu xasida di woo kuréel gi màggal ñaari guddi Dakar yi muy màcc mu nooree ni jëruñ di bàyyi njuga ñu ngi ko ci woo. ñu ngi ciy woo mbooloom daayira 313 daayira yi nekkoon kees bu Masaalikul Jinaan yi mbooloom jëruñ yëpp ñu ngi leen di woo. ci bis bi di woo ma faati Bichri bu port 11 novembre jëwriñ Maguette Diop di woo soxna Soda Xumma julli géej gi di woo maj mu nóoree ni daayira maj mu nóoree ñu ngi koy woo di woo daayira Touba Sandaga di woo Fatxul Xafaar jëwriñ di Sayar Jaay du di woo Fatxul Waxaab Touba Dakar di woo daayira Touba Refan Iliman Diouf jëwriñ Iliman ñu ngi koy woo di woo mbooloom fédération yi nekk soow jant yëpp bismillah bàkk borom jenne ñu ngi ziare bu baax a baax tey jëfe ndigal li ñu jox rek euh, bis bi nga xamante ni ñu ngi koy wooteel maam Cheikh Issa Diène ci ndakaaru mbooloo mi koy def nag mi ngi tudd Jamhiyatu Tawdihi wa Nasri li injaazaati maam Cheikh Issa Diène muy mbooloo moo xamante ni dafa boole sëti maam Cheikh ak euh, taalibe ak seex yeeg ñëpp rek ngir liggéeyal maam Cheikh ci ndigalu sëriñ Abdou Latif Diène xalifa maam Cheikh Issa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu kër gi yëpp euh, bis bi it ñi ngi ci woo mbooleem daayira yi bokk ci waa kër maam Cheikh Issa Diène fédération daayira waa kër maam Cheikh Issa Diène bi nekk nekk Italie ak Europe gépp rek di ci woo tamit axfaat euh, daayira maam Cheikh Issa Diène nga xam ne daa bu euh, daayira sëddi la di ci di ci woo tamit daayira fondation euh, maam Cheikh Issa Diène ak mboolem daayira boo xamante ni ci kër gi la bokk rek ñu ngi la ciy woo ak daayira yi nga xamante ni ñu nekk ci biir kër sëriñ si ñëpp ñu ngi leen ciy woo muy góor di jigéen di bis bi nga xamante ni jiitu wax nañ ko muy le 28 janvier 2024 ci CICES bis mooy juróom-benneel édition bi yàgg nañ koo def mboolem fi ñu jaaroon di ko def ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo li tàmbalee kër maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñu ko njëkk a tuddee euh, sëñ Massamba Diop Sam sëriñ euh, maam Thierno Ibrahima Fati sëñ Ahmadou Ndoumbe Sahidine sëñ Mandoumbe sëñ Balla Faali Dieng ba kii ñii ñu ko tuddee muy maam Cheikh Anta ak sëñ ñu ngi leen koy yëgal bu baax a baax bis bi ndigal ndigal lañ ci am sëriñ Cheikh Jenn moom sëñ Soñ bu Jenn moom sëñ Baara mooy ki nga xamante ni mooy njiital euh, daayira bi di nga di koo xamante ni moo moo moo moo moo am ndigal li ci sëriñ bi ñëw yaatal ko ñu ànd ko ak moom di ko liggéeyal maam Cheikh Issa Diène di am mbégte mu rëy nag ci woote bis bi nga xam ne moom la ñuy defee ca 6S ca unité africain le 28 incha allahu rabbi ñi koy defal sunu maam maam Cheikh Issa Diène radiyallahu anhu ren jii nag bokk yi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi ñuy jagleel ko ñaari jàmbaari lislaam ñaari rakki Seexul Xadiim muy sun maam maam Cheikh Anta Mbakke ak maam Serigne Afia Mbakke euh, kilif suñuy kilifa nag jox ñu digal ñu toog fii ngir di ci woo mboolem koo xamante ni mi ngi aju ci Serigne Afia mbaa ngi aju ci maam Cheikh Anta ñu ngi lay woo ci bisbi euh, bis bi nag mbokk yi dañ koo def ngir suuxat li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon ñu fas yéene koo suuxat. ci xam-xam ak jokkale bokk yi ak bokki taalibe yi ngir ñi mën a gën a mën a takku ngir mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon daal kilifa yi nee nan la ko tàmbalee ci Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifu Serigne Afia Mbacké ak mbooleem jabootu maam Cheikh Anta la ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké ba ci kër Serigne Abdou kër Serigne ñoom ñëpp noo ngi leen di woo ci bis bi incha allah rabbi fu taalibe mën a nekk daal bu bi ñëwee na nga bàyyi la nga nekkoon te ñëw wuy si bis bi incha allah rabbi nga xam ne moom lañ defal Cheikh Issa Diène ñiy sàkku daal bu bis baa mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci maam Cheikh Anta mbaa nga aju ci maam Serigne Afia incha allah bis boobaa na nga teew. ñu ngi leen di woo ci bisu maam Cheikh Issa bi sama woote ji nag ak sama kàddu bi maa ngi koy yëkkatee ci ndigaloo suñu maam May Diène maam Cheikh Issa. di woo soxna Mbène jenn mi nga xam ne ne mi ngi ndakaaru ak njabootam. di ci woo soxna Bintu Diène caaroy Samsam ak njabootam di woo soxna Ngëye jenn yaraax. di ko woo ak njabootam ak fédération daayira Maam Jaara bi nga xam ne ne soxna Maam Jaara Muntaxa moo ko jiite nekk fii si Masalik ñi ngi woo fédération daayira Maam Jaara yëpp ak bépp soxna boo xam ne ne yaa ngi yore daayira nekk ci Ndakaaru woo nañ la si bisu maam Cheikh isaa bi ñuy fàttaliwaat soxna yi li nga xam ne ne bis bu nekk dañ leen koy wax kuy ñëw ci bis bi ñu ngi lay ñaan nga bañ fa indi greffage nga muur su muuru sol col gu jot ndax bis bi moonu toll sous ndigal et la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér patronage de Serigne Abdou Latif Diène xalif général de Ndiéné Serigne Sidi Mbacké xalifa Maam Cheikh Anta Mbacké parrain de la journée Serigne Saliou Mbacké xalifa Serigne Afé Mbacké parrain de la journée Serigne bu Diène xalifa Serigne Bara Diène son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal sëriñ Mamoun Mbacke xalif sëriñ Moustapha Ceytu sëriñ Abo Mbacke xalif sëriñ Modou Mamoun Mbacke sëriñ Moustapha Lakram Mbacke sëriñ Sidi Mbacke xalif sëriñ As Guédé Mbacke sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre porte du xalif général des Mourides. sëriñ Sidi Xay ba Mbayaar xalif de sëriñ Bassirou Dieng sëriñ Bassirou Mbacke Xaadim Awba sëriñ Cheikh Thioro Mbacke député à l'Assemblée nationale sëriñ Makhtar Dieng PDG centre éducation Kër Maam Awlo sëriñ Babacar Mbacke sëriñ Aydara Mbacke sëriñ daam Dieng ibnu sëriñ Mbacke Dieng monsieur Amadou Ba premier ministre du Sénégal monsieur le ministre Boun Abdallah Dionne madame la ministre Aminata Touré monsieur Lat Diop ministre des sports monsieur Pape Modou Fall directeur de l'emploi monsieur le ministre Mame Boye Diaw monsieur Déthié Fall président du PRP madame le maire Ndeye Sophie Camara monsieur Adama Diallo directeur Petrosen marine de la journée soxna aji maam Bousso Mbacke la jamhiyatu tawdi wa nasri li injazati maam Cheikh Issa Diène à le plaisir de vous convier à la journée culturelle de leur vénéré marabout maam Cheikh Issa Diène qu'ils organisent le dimanche 28 janvier 2024 au CICES e parrain de la journée maam Cheikh Anta Mbacke et Serigne Afi Mbacke au programme 8 heures lecture du Saint-Coran et des Khassidas 10 heures mise en place 11 h omage à Serigne Saliou Touré Serigne Omar sëriñ Mor Tandine sëriñ Sidi Tandine sëriñ Baara Cissé soxna Bali Mbacke as Daaru Salaam soxna Faatu Mbacke Jenn soxna Gàdd Bousso moom sëriñ Mbacke Bousso soxna Ndey Mbacke Moustapha masamba soxna soxna Anta Tine 12h30 de la journée Dara Dial Maam Cheikh Anta Mbacke 13h30 projection film sur la vie et l'œuvre de Maam Cheikh Aïssa Diène 14 heures prière tisbar et déjeuner 15 heures 15 heures 40 conférence animée par Serigne Gana Messere thème la paix Serigne Fall Dieng qui doit développer le tem la paix muy jàmm 15 heures 40 16 heures 45 16 heures 45 rubrique xamle ku baax 16 heures 45 prière tisbar 17 heures discours de clôture par le représentant du khalife général de jenne et suivi du discours final de remerciement mu mel ne nag ah, sëriñ ah, Babacar Mbacke mu kabbro waaye tamit ah, sëriñ Sidi Mbacke alquran ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo nekk ndakaaru ñi ngi koy waaj waajtaay wu rëy ndax nag ku ne xam ne sëriñ Saliou Mbacke ak sëriñ Sidil Muxtar ñoom ñi nga xamante ni ñoo toog toogaayu maam Cheikh Anta ak sëriñ Afia dañu ni bis kat. bis bu rëy la ba képp koo xamante ni bokk nañu ak moom ah, Mame Mor Anta Saly ngi la ciy séntu ndax nag bis bi woyeful ci ñoom kon nag kaay ñi ngi koy waaj bu baax a baax ndax ku ne xam na ne nag ah, Serigne Touba moo jàkkarloo ak maam Cheikh Issa Dienne ni yàlla xamal na ma ni maam Cheikh Issa jën mi jàmbaar la kon nag ay ah, jàmbaar yi maam Cheikh Issa Dienne yi ñoo witt bisum maam Cheikh Issa le 28 ci Cissés lay doon dimanche mbokk yi ku ko wute da nga wute wu rëy waa diaspora bi waaj leen waa Ndakaaru waaj nañu. ñeneen ñi nga xay ñoo wër àdduna war ngal kapp nañu fi teew ndax nag képp ku fi teew sa aajo dana fajo ndax nag mbokk yi daaru salaam ku ne xam na ni jàmm lay firi waaye thème bi nag jàmm la kon nag ñu ngi ciy séntu ñëpp mbokk yi dig daje dimanche la 28 bu ko kenn wuti arafi Touba.